ci biir palais bu justice Dakar voilà Guy mari Sagna actuellement yegg si na euh, moom nag tout à l'heure doon gis ne mu ngi woon ci euh, convoi Ousmane Sonko bi ba ñuy jàmmarloo fële ci rond point ñu gis ne aussi moom euh, moom honorable député Guy mari Sagna yegg si na fii ci palais bu bu Dakar gisoon ngeen ko sànq ci convoi osman sonk bi gannaaw ba ka élément bi bi génnee ci otom par la force moom Guy Marius Sagna ñëwoon na jàpp Ousmane Sonko xëcce ko ci élément bi bi pour yóbbu ko waaye mu jëwul euh, sotti ndax élément bi bi dañ ko nanguwaat ci euh, ay loxom pour euh, dugal ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ci seeni fourgonnette pour andi par la force ci biir palais bu justice bu Dakar gis ngeen ko mu ngi noonu honorable député Guy mari Sagna mu ngi noonu di yegg si biir palais bu justice bu dakaar gis ngeen mu ngi noonu di ñaxtu am na lu muy wax mu ngi noonu du ñaxtu moom moo honorable député Guy Marius Sagna euh, di doog a yegg si fi nga xam ne moom mooy palais bu justice bu Dakar euh, mu nekk ay mbir yoo xam ne nag euh, yéen a ngi koy mën gis mbokk ñuy topp depuis suba ak léegi lépp loo xam ne rek am na fi comme information daañu leen ko dëgtal ñu ñu nekk ay mbir yoo xam ne nag mbokk yi mbir yu doy waar la ndax li ñu nemmeeku woon mooy depuis ce matin comme Ousmane Sonko ba mu génnee këram ba ba muy yëg si rond amuloon benn xët-xët boo xam ne ni amoon na ci euh, convoi am ak force de l'ordre yi waaye ba mu see fi nga xam ne moom mooy rond-point Mermoz li ñu seetlu mooy fa la coow li commencé ba am ay jàmmarloo yu am ci diggante convoi Ousmane Sonko ak euh, force de l'ordre yi ba sax am ñoo xam ne jël nañ ci ay gaañu gaañu am ku na koo xam ne si tànk bi lañ ko dóor bal ba dara ji mujj ko sang mu nekk lu doy waar loo xam ne tey lu ñuy ñaawlu la ndax euh, force de l'ordre li ko war mooy maintien de l'ordre waaye aussi euh, du ay dóor si ay euh, citoyen ba di leen di gaañ beneen di mooy gannaaw ba loolu amee ñoom élément bi bi dañoo mujjee wër oto Ousmane Sonko bi comme nañ ko defoon le 16 février bi ñu génne ci ba muy ñibbi këram dugal ko ñoom seen fourgonnette pour andi ko directement fi nga xam na moom mooy palais bu justice bu Dakar bu nekk ay mbir yu day waar yoo xam ne ni yéen a ko doon seetaan depuis ce matin ñu leen koy dëgtal en voilà mbokk yi ba léegi rek ñu leen di toppal xibaar yi nga xam ne mooy jóge fii ci palais bu justice bu Dakar kii di njiital Pastef Ousmane Sonko moom euh, yegsi na tout à l'heure depuis bi 11 heures tegalee depuis bi 10 heures tegalee ay simili si la yegsi fii si pale bu juste bu Dakar donc euh, Abbas Fall aussi moom mu ngi nii di yegsi gis ngeen la député Abbas Fall mu ngi nii di yegsi ci gis ngeen ko mu ngi nii di yegsi voilà mu noonu Abbas Fall bu Pastef di premier adjoint au maire moom aussi mu ngi nii di yegsi si biir euh, palais bu justice bu Dakar bokk ci parti bi di euh, les patriotes di Pastef moom aussi di. ku ñu ràññee si euh, ki nga xam ne moom mooy euh, côté Ousmane Sonko waaw mu ngi noonu di yëg moom Abass Fall ci biir palais bu justice honorable député Guy Marius Sagna moom euh, sànq la yëg euh, donc mu nekk loo xam ne ñoom ñëpp dañ fi teew pour dooleel ki nga xam ne moom mooy njiital Pastef les patriotes di euh, Ousmane Sonko di wax ne bi 10 heures tegalee ay simili si la Ousmane Sonko yëg si si biir palais bu justice bu Dakar si convoi wu élément bépp comme ni ñu ko defee woon rek la fois passée dañ ko génn ci otom dul ko ñoom seeni solo ndax ndax boo xoolee euh, li nga xam ne moom moo amoon 2011 euh, euh, jàpp 2012 jëm ci troisième candidature président Abdoulaye Wade mun nañu wax ne histoire boobu noon mooy répété waat encore avec le président de la République